yi ci la ñu xeex xeex bu metti mu daal di koy jàmpaaka jakartamaan bi ñàkk bakkanam vox populi ne ko agresseur bi kay dafa faat nag kookee di jakartamaan bi laataa ko askan wi dóor ba mu sonn door koo taal mu di ñaari bakkan yoo xam ne rek faatu nañu démb foofee ci cité Ousmane Ngom nekk ci diwaan bu Thiès moom moomee di agresseur bi nag askan wa dañoo mer bay futtu ginnaaw bi ñu yëgee ne am na ab jakartamaan bu mu ba faat bakkanam loolaa waral nag ñu daal di tuba yu ñoom itam nag dóor ko ba mu sonn daal di koy taal libération ne ko ci cité Ousmane Ngom nekk ci diwaan bu Thiès Thiès foofee la mbir ya xewee PS Dieng la agresseur bi tudd yéenekaay bi ne moom yàggul bi mu génnee ca prison ab bracelet électronique moom la ñu ko takkaloon mu doon ko doxantoo des ci xew-xew yi nga xam ne rek xew na démb ci alxames ji juróom-ñeenti doomi aadama ñoo jële ay gaañu-gaañu ci ab accident bu metti boo xam ne rek am na ci diggante Ndula ak Xuru Mbàkke ab camion boo xam ne rek dafa janoo ak kaar moo waral accident boo xam ne rek faat na fa juróom benn bakkan ci saase ñàkk seen bakkan ginnaaw gi ñi faatu ci bëri nag ci Jurbel la ñu fekk ci ab rob la ñu demoon foofee ca Touba ñeent ñoo ci jëlee ay gaañu gaañuy metti ña nga ñu yóbbu ca l'hôpital bu Diourbel ñaar ñoo xam ne rek jamono ji ñu ngi ci ab l'hôpital foofee ca Touba ñaari bébé yoo xam ne rek ñoom dara joti leen ci boobee accident seeni yaay jamono ji nag ñu ngi ci situation bu doy waar directeur bu ANASER bi nga xam ne moo teewoon ci boobee accident nag ma ngay woo askan wi ngir ñu daal di def ndànk rawatina chauffeur si nag ma ngi leen di woo ngir ñu daw ndànk ci jamonoy màggal gi l'observateur daal di xam ne ni ci diggante Ndoulo ak Xuru Mbàkke foofee la bi amee nag nag listub nga xam ne ñoo ci faatu nag toll nañ ci juróom-ñeenti doomi aadama ci bi yëglekaay fell ko ne téeméer ci ay doomi aadama ñu ngi ñàkk seen bakkan fii ci réew Sénégal moo xam ci accident yi lay doon wala ci li nga xam ne rek moom moo di ci géej gi ci diggante juróomi weer kepp ndax démb rek juróom-ñeenti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci kaw tali bi ñu ne déetawaay ab agresseur nag ñu daal di koy dóor ba mu faatoo ginnaaw bi mu agressé benn jakartamaan ba faat bakkanam addu jëmale ci leneen ak l'observateur mi nga xam ne rek xëyee na tey ji ak loi amnistie bi nga xam ne rek moom moom lañ fi woote woon yéenekaay bi dellu siwaat ci càkku teef gi nga xam ne rek moo soxal victime yeeg ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yëngu ci wàllu yoon Vox Populi ne ko waa Forum sivil kay ak collectif bi ëmb victime yooyee nag ña ngay sàkku ñu daal di neenal nag loi amnistie boobee nga xam ne rek Macky moo ko woote woon fii ci réew Sénégal mu di ab loi boo xam ne rek dañu ko war a la donte ni dina am ay conséquences ci wàllu yoon waaye nag Birahim Seck moom ma xam ne ni daal bu sañoon nag parlement bi dañoo war a amal nag ci assemblée nationale benn taxawaay boo xam ne rek daañu mën a abrogé nag loolee nga xam ne moo di loi amnistie bi ay enquêtes yu yaatu yoo xam ne rek dañu koy xóotal bu ko defee nag ñu mën a situer responsabilité yi nag loolee mooy càkkutee fu fédération bi nga xam ne rek moom moo ëmb ñi lorule woon nag ci li nga xam ne moo di événement yi fi xewoon nag Sud Quotidien xëy àddu jëmale tey jii nag ci coow li amoon ci diggante presse bi ak état bu Sénégal yéene kaay bi ne mu mel ne ñu ngi ci yoonu déggoo moom jiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay woote ab waxtaan boo xam ne rek dinañ ko amal ginnaaw bi ñu fi amalee ab journée sans presse jëwriñ ju ñu dénk wàllu communication bi di Alioune Sall nag ma ngay lancé ab plateforme déclaration média du Sénégal lu ni mel nag ñu fas yéene koo taxawal ngir encadrer secteur bu média bi 24 xëy tey jii nag addu jëmale ci ni bëgg a jooyantiwaatee secteur boobee ëmb way taskatu xibaar yi yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi sàkku ñu daal di ci nu mu gën a gaawee loolee nga xam ne rek moo di code de la presse situation bi nga xam ne rek moom rek ñu daal di caa mën a wut ay saafara Walf Quotidien xëyee tey ji nag lu jëm ci tasub assemblée nationale yéeni cabinet député yi jamono ji nag ci ab siège éjectable la ñu toog lu jëm ci modification yu règlement intérieur yi nag kii di Abdourahmane Diallo bu tekki ma ngay sàkku nag ñu daal di tasaare assemblée national bi moom moomee nag jàpp na ne faaw loolee ñu amal ko bu ñu bëggee ànd ak ay député yu responsable ba noppi ànd ak rigueur loolee rek moo ñu mën a may ñu mën a amal ab discours politique général de rupture boo xam ne rek moom la ñuy xaar ci biir deneen les échos yëglekaay mu jëm ci port autonome bu Ndakaarook la fa xew yéenekaay bi ne jamono ji doxalinu Waly Diouf Bodian nag ñii di syndicat yi ñu ngi koy ŋàññ ñoom ñoo ñee ña ngay fësal la ca gannaaw dëgg jëm ci ay terme de référence yoo xam ne rek dafa ñeel ab marché marché boo xam ne rek conseiller technique bu DG bu port moo ko gañee doon it point focal bu directeur général bi marché boobee nag syndicat yi ne ab violation la bu article 80 bu code des marchés publics loolee waral ba président bu commission des marchés ak adjoint ñu daat leen di écarter ci attribution bi l'observateur moom itam àddu jëmale ci génn gi nga xam ne rek syndicat yi nekk ca port génn nañu ko di amal ay tuuma ci kaw Waly Diouf Bodian ñoom syndicat yooyee nag ña ngay ñaawlu violation flagrante yi nga xam ne rek am na ci code des marchés bi ak lu jëm ci disposition yi nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu transparence ak éthique foofee ca biir port cellule bi ñu dénk wàllu communication bi nag ma ngay xam ne ni dana indi ay leeral ci lu ñu mel xam ne la DG bi di doxalee ca biir port yéenekaay